wa taxaawanu ala albirri waltaqwa wala taxaawanu ala alismi waludwan walsalatu walsalaamu ala man ursila rahmatan lilaalamin sayidina muhammadin alqail almuminu lilmumin kalbunyaani yasuddu baaduhu baada wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira mumassili soama addiiniya wa jamciyat almadaris alquraniya ممثل الحركات الإسلامية والمنظمات الخيرية ممثل رئيس البلدية أيها الحضور الكرام باسم جماعة أهل الخدمة وباسم رئيسها المصرف السيدة عائشة بوري مبكة بنت الشيخ محمد المصطفى بشير حفظها الله ورعاها نحييكم ahsana tahiya wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh nurahhibu bikum jamii'an fi haadihi al-munaasaba al-'aatira qaa'ilan lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum أيها السادة الحضور إننا لمسرورون غاية السرور في اللقاء معكم مجددا من أجل التعاون ala ihlaa'i kalimatillah wa xidmati kitaabihi al-aziz allazi laa ya'tiihi al-baatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi inna jamaahata ahlil xidma kama huwa ma'ruuf jamaahatun tatakawwanu min rijaalin wa nisaa min shattal amaakin wa hadafuhum al-wahiid huwa xidmatu kitaabillah al-aziz raaqibiina fi saalika al iltihaaq bi ahli alqur'ani alkarim allazina hum ahlullahi wa xaasatu kama warada fi lasar wa haasa alyowm tamma iqaamatuhu li izhaari baadin min injaasaati aljamaaha wa tawsil baadi juhuud wa baadi xadamaatihi ila almaaniyin wa hum hum ahlu alqur'ani alkarim daarisiina wa mudarrisiin والجماعة تمد اليد لجميع فاعل الخير وكل من يرحب في خدمة أهل القرآن ونشكر جميع الأعضاء رجالا ونساء على جهودهم الذي التي يبذلونها في الليل والنهار نسأل الله أن يتقبل جميع أعمال ويكتبها في ميزان حسناتهم كما نشكر kulla man taxaawana maxana fi xidmatina haasihi wa kulla man saaxama fi taxqiiqi masruucaati aljamaaha maadiyan kaana aw maxnawiya naskurukum min acmaaqi quluubina jasaakum allahu xayra wa axsana ilaykum wa xitaaman nadhu aljamiix doona istisnaa ila tacaawuni maca aljamaaha على تحقيق أهدافها أبوابنا مفتوحة دائما وجاهزون للتعاون مع الجميع وشكر الجزيل موصولا إليكم مقدما نشكر كل الحاضرين بل والخائبين الذين نووا الحضور ولم يتمكنوا لعسر alhamdulilah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bu ñu santee borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu sant ci téeréem bu tedd bi ñuy dimbalante ci mbaax ak ci ragal boroom bi moom mi nga xam ne moo ñu jox sangub sang yi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam seydina muhammad moomu nag wax ñu ci lu leer naññ ne ab jullit ak moroomum jullitam dañoo war a jàppalante ba mel ne ab tabax ni birig yi jàppalante ba mu doonu tabax jullit yépp noonu la war a jàppalante kon yéen mbokk yu tëdd yi ñu ngi leen di nuyu ci turu kuréel gii di ahlul xidma di leen nuyu ci anam ga gën a rafet di leen dalal jàmm ci xew-xew bu màgg bu tedd bi ci turu ki nga xam ne mooy njiit li di soxna Aïssa buri mu seen Moustapha Bachir ñu ngi koy ñaanal yàlla sàmm ko te dëgëral ko te guddal fanam te àggale ay yéeneem dafa am ngant wante délégation yi nga xam ne ñoom la yebal ñu ngi teew fii soxna Jabaara Mbakke ak ñi mu àndal soxna Bali Seck ak yeneen soxna yi ma àndal ñu ngi nii toog ñoom seen bopp mën naa ne kon ci seen kàddu laay waxe ñu ngi sant bu baax Cheikh Mouhamadul taxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér ndawam ñëw na fi sànq di sëriñ Abdul sëriñ seex Mbacke mu sëriñ Abdul Latif di ku sës ci moom di koo xam ne moom it ku am yéen la ci liggéey bi dégg ngeen kàddu yi mu fi jot li di kàddu yi sëriñ bi ndax liggéey bi bu ñu koy def sëriñ bi lañ koy defal day mel ne moom lañ ci jàppale ndax tool bi lépp ab toolam la kon ñu ngi leen ñu ngi nuyu sëriñ mun Muntaxa te di ko ñaanal baax ba naal yi mu am ci lislaam yàlla suñu borom defe ko ci lu kawe njortam te ñu ànd ko ak mbooleem taalibe sëriñ Tuubaa yëpp euh, di nuyu mbooleem ñi nga xam ne yëpp teew nañ lim nañ ko sànq du jara ñuy jaaraat ci tur yi wante dañuy doyloo rek ñi nga xam ne mbokk mi doon na ko lim li ñu ci mënta ñàkk a tudd ñooñu ñoo yëbbaale ñu ci des sëriñ Ahmadou Badawi ku am taxawaay la ci bis bi ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ci taxawaayam euh, moom mi nga xam ne moo jiite mu jamax bi euh, di sant bu baax itam sëriñ Mouhamadul Moustapha Diop Ndar euh, moom itam bokk ci jiite njàngum alxuraan mi ci université bi dégg ngeen kàddu yu am solo yi mu fi indi ci wàllu waqf muy taxawaay bu am solo boo xam ne euh, yéen sallallahu alayhi wa sallam dénkaane na ko xeetal ci jullit ñi ñu war di ko def ngir gën a dëgëral lislaam muy jël sa alal jox ko yàlla féeg alal jaa nga fa mu nekk ci turu suñu boroom ku fi nekkal téere bi nekkal fi lu baax di ko jariñoo kon loolu di tom bu am solo ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax waaye di sant di gërëm itam sëriñ Xaadi Jaxate ci turu raabita bi mu teewal fi mbooleem jàngalekati alquran yëpp di sant mbooleem xalaa yaaye muy sous section yi nga xam ne ñoom ñëpp teew nañu fii tey tudd nañ seen tur sànq ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax a baax euh, di jiital koo xam ne it euh, day mel ne taxawaayam umpatul kenn muy sëriñ Abdou Samad Mbacke mu sëriñ Soaybu moom ambassadeurul islaam la ku ne xam na digganteem ak alxuraan digganteem ak daara wante loolu du nekk lu bette ndax ku xam sëriñ Sohaybu cër bi ko suñu borom cërale ci alxuraan baayam bu tëdd ba Seexuna Ahmadul Xadim cërale ko ko kon sëriñ Abdou Samad su ñëwee am taxawaay bi mel nii la xarwa def na li mu war a def waaye ki def li li war a def moom rekk mat a ñaanal moo mat a sant kon mbooloo mi ñu ngi leen koy dénk sëriñ Abdou Samad mu sëriñ Soaybu eh, doomam teew na fi nii di sëriñ Mourtada Mbakke eh, kon ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax ànd ak ñi mu àndal bu yàgg ba léegi lépp lu ñuy def mi ngi koy ànd ak ñun ak lu mu sori sori ak lu mu jege jege dara ump ko ci liggéey bi dégg ngeen taxawaay yu am solo yi mu fi def eh, xam ne mbooloo mi moom la ñuy liggéeyal ndax sëriñ Touba. ñoom ñëpp euh, ay bànqaas lañ ci moom moo tax mu daal di génne ay pàkk joxe ko ne jox na ko kuréelu ahlu xidma ngir ñu mën fee taxawal seen projet yi nga xam ne mu ngi seen kanam yemu ci mu ne machine foot yi nga xam ne moom lañu wut moom it incha allahu taala dana ci joxe ay machine am kon kooku ku mat a ñaanal la yéen soxna yi ngeen xam ko te ñaanal ko baax a baax ak yéen baayu daara yi di nuyu itam mboolem baayu daara yi ci turu sëriñ Mouhamadou Xaali Mbub dégg ngeen ko sànq mu jël kàddu ñoom itam di ay jàmbaar yoo xamante ne bi ñu ngi ci e, liggéey bi di sant rek mbooleem koo xamante ne bi am nga taxawaay bu rafet ci e, liggéey bi sëriñ Hamsatu Jaxate e, di chef de village bu Touba Mouski moom itam ñu ngi koy gërëm ndawam teew na fi ak ay jëfam ci turu sëriñ Seex Silla ak mboolem quartier yi bari ci biir dëkk bi ku mel ne Serigne Talla Diop moom itam teew na fi ak jëfam kon ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax di ko sant ndaje daara yi dëgg ndaje daara yu njaareem yi ñoom itam jóge nañ ba njaareem ñëw ak seen jëf ju sell dégg ngeen ki doon wax ci seen tur sànq euh, nday daara département Mbacké soxna Mariama Jaxate moom it teewal na boppam moo ko jiite ànd ak soxna Umu Kalsoom ak ñi nga xam ne ànd na ak ak ñoom ñoom itam ñëw ak seen jëf yu yu am solo kon ñoom ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax docteur yi gis ngeen seen taxawaay tey muy taxawaay bu ama am solo dañ koy tàmbalee ci docteur Ndeye Maguette Diop moom naka jëkk dafa mas di ànd ak kuréel gi ci anam yëpp euh, xaarul ba tey muy soog a feeñal jëfam waaye jëfam dafay jiitu woon tey tey mu ñëw mu feddali ko dolliwaat ci lu ëpp loo xam ne joxe woon na ko fi kon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax moo euh, directeur bu hôpital bu jannatu sëriñ Maxtaar ngeen dégg ko léegi mu taxaw fi indi ay kàddoom yu am solo moom it ñu ngi koy gërëm ci taxawaay bi mu am ci wetu daara euh, mboolem kuréel yi nekk ci Touba ñoom ñëpp ak dawaayir yi muxaddamatul xidma teew na fi ci ñu fi njëkk a teew lañu bokk di daayira bi nga xam ne ñoo yor jumaa yi Touba wante Euh, markasu iqra di markas boo xam ne moom it dafa taxaw di jàppale dongo yi di jàppale sëriñ daara ci ay formation te sëriñ maam alha sëriñ euh, maam sëriñ Dia jiite ko moom it ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax ci teewaayam soxna maam bu sa ba ayil xadim moom itam euh, ay jëfam ak i ndawam teew nañ fi waa wilaaye ñoom itam teew nañ fi ak seen i jëf ñu leen di gërëm di leen sant bu baax a baax a baax a baax man naa daal dëkk bi kenn desut kenn ku nekk la ngay yëngu ci moo xam ñi nga xam ne ñooy jaay ndox ci Touba ñoom it ay kuréel yu am solo lañ ci turu Serigne Dame Ndiaye mboolem ndox mu ngeen fi gis ñoo ko fi indi ak sëriñ Serigne ba Badew yi moom itam maa u euh, Haynu Rahma moom itam am na taxawaay bu am solo boo xam ne jëf na ko ci wàllu googu Serigne Moustapha Silla mi nga xam ne Matlabul Fawzayni moom itam ñu ngi koy gërëm bu baax ci taxawaayam kon daal secteur yi daanaka kenn desut ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ci seen seen taxawaay ba ci ñiy defar kafeek ñi defar ñi ñuy joxe ay bool ak ñi koy jaayee ñoom ñëpp kenn ku ne la ngay liggéey sàkk nga ca andi jox ko kuréel gi ngir ñu delloo ko ci daara yi kon ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm ci seen tur di leen ñaanal yàlla mu yokk seen euh, liggéey yokk seen wërsëg bu baax a baax a baax a baax kàddu yi kat duñ ko guddal ndax day mel ne ñi nga xam ne ñoo ñu fi jiitu li ñu fi wax dafa doy sëkk ñoom ñoo ñu waxaaleel ñun suñu warugar rek mooy gërëm leen yëg na leen xam ne ñu euh, mbooleem lu fi waaye jëf gis nañu ko suñu gis nag amut solo waaye borom bi nga xam ne moom laa taaxusuhu sinatun wala nawm moom dara ëmp ko te lépp teg na ci bëtam koo xam ne itam tudd nañu sa tur it na la wóor ne yàlla moom gis na la dafa fekk ne waxtu yi moo gudd moo tax euh, du ñu mën a jaaraat ci tur yëpp waaye mbooleem section bu nekk tubaay ci sëriñ daara yi xale yii ñoom ñëpp ñëw nañ fii muy ndaamaatu tubaa surra aliya euh, ba ci saam bàyyiwuñ kenn ba ci sëñ ndaraw ga sama ñoom kenn desut xal yi yëpp ñëw nañ te sëriñ xaali moom kese bu ñëwoon da leen di yóbbaale ñoom ñëpp waaye teewut ñoom ñëpp ñu xam ne liggéey bi seenum liggéey la ndax soxna yi ñoom la ñuy liggéeyal kon bu ñu amee bis war nañu bàyyi seen yitte ñëw kon mboolem kuréel yëpp daal gërëm nañ leen ku ñu tuddul nanga xam ne doomu aadama moo matul te tur yëpp nekkul suñu loxo waaye ki doon lim lim na ko sànq ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen xamal ne waxtu yi moo xat ne amoon nañ discours boo xam ne mën naa jël trent minutes ci loo xam ne lu ñu waroon a wax la waaye nag doyloo nañ kàddu yi fi jiitu yàlla ñu yàlla may rek dégg ak topp yéen soxna yi nag di jàmbaare yi nga xam ne euh, yéen moom li ko sëñ bi wax a sànq rek nee na saa bu ñu ubbee àjjana moom dañ leen di bàyyi ñun dugg ba fees ba ba ba jeex bu jeexee su ci góor ñu xajee dugg bu ci xajut ñu xam nuñ def waaye yéen jigéen ñi moom macha allah taxawaay bi ngeen xam ne am ngeen ko moom taxawaay la bu mat sëkk fa lislaam tàmbale woon nga xam ne kero ba iqra wàccee euh, donga ba am jafe-jafe te mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen ko dalaloon bak ko kañ ko jàppale ko dimbali ko ba mu ñeme loolee nag ba tey jii mooy rogalaat bi agsi ci yéen kon nag gàcc ngaalaama yéen soxna yi yéen kuréel yi nga xam ne yéen ñëpp li ma juróom-ñaar fukki kuréel samp nañ ko ci dëkk bi muy taxawu ndongo yi ci wàllu fóot wàllu di leen toppatoo ci ab dund wàllu di leen toppatoo ci wér-gu-yaram loolu liggéey la bu am solo boo xamante ne bii euh, ñu ngi leen di ñaan rek yéen gën a jàpp te gën a dëgër te gën cee way te te xam ne seytaane lu baax lay bañ a gis ñu ñii de sunu coona ànd ko ak yéen dara wërlu ko ludut gis ne ay jàmbaar ngeen ñu bëgg dem ngeen te li ñu war ñun mooy ñu jàppale leen waaye su du woon loolu toog te suñu daara suñu ndaara nekk fa di kurti kurti waaye loolu bu ñu ko defee kon amuñu ngor suñu amee ngor dañu nekk seen gannaaw lu ngeen nekk ñu nekk ci ak yéen loolu mooy suñu coono bépp coono boobu nag yàlla bu mu neen te yàlla bu ci seytaane amu yoon yàlla na yàlla sàmm leen sàmm seenu njaboot bañ ñëw di ko liggéey ngeen toog di leen soñ di leen soññi yàlla ñu ne ayna ahlu xidmati lil muslimina suñu borom yéen ne ayna ñu doon liggéey jullit ni boobaa ñun ñëpp ñu jóg ni ko noo ngi nii mu ne daw leen dugg àjjana ci lu ànd benn coono te incha allahu taala jàpp nañ ne ñooñu kenn duñ te jiitu ndax liggéey boo xam ne séentuwoo ci dara àddina lépp yàlla rek a tax loolu nekkul lu yomb te ku ne xam na daara moom dara àddina nekku ca lu ci waa ji def yàlla doo ngay tax kon yéen soxna yi gërëm nañ leen bu baax a baax a a baax a baax wàllu mutuelle bi euh, xëy na waxtu wee xat ne am na soxna soo xam ne sax yabal nañ ko fi ngir loolu ngir mu waroon ci indi ay leeral ñu bëggoon soxna su nekk mu paree ne ab donga wax ne man jël naa benn donga wala ñaari donga wala ñetti donga am na ñoo xam ne jot nañu koo def ku mel ne soxna Adja Diop mi yónnee na ma ay tur yu bari yoo xam ne kenn ku nekk ne pare na nga donga boo xamante ne bii da ngaa ne yow yaa koy fayal mutuelle de santé am xamante ne bii loolu 2000 francs rek la muy ñeenti téeméer soo ko joxee donga bi at mépp mën naa faju ni ko euh, docteur doon li doon waxee sànq su waroon a fay junni man nga ne euh, junni bi dañ koy xaaj ñetti yoon benn benn xaaj bi dong lay fay li des lépp mutuelle bi moo koy fayal loolu nag lu ama am solo la kon nag ku ci mën a jaayante nga bindu wax ne man pare naa ab dong bul xam sax dong booy pare ne su ko defee bu ñu amee junni junni doomu aadama yoo xam ne ku ne pare na ab dong daañu am junni donga loola ñu tas ko ci daara yi ñu wax la nga bind ñaata xa ñaata ñaata xale nga bëgg a bind ñu fayal leen ko su ko defee at mépp suñu tawatee mutuelle bi moo leen di faj loola bokk yi liggéey bu am solo la te ëllëg lu mat a waajal la lu mat a bàyyi xel la fii këru liggéeyukaay képp la du këru dara këru liggéeyukaay la te lu gàtt gàtt la te ëllëg ga nga xam ne dafa gudd lool te amul fa mu yem lañu fay jariñoo fii la ñu koy sàkkoo kon nag nopp lu xaju fi dara xaju fi lu dul rek suñu noyyi gi ñu fexe ba noyyi gu ne su génnee balaa balaa gën a na ñëw mu ànd ak tuyaaba waaye lii ngeen def nekk nu la am am solo kon loolu ñu ngi ci woo jullit yëpp ku dem yóbbaale ko ku ko mën a daal tàmbali fii nga bindu wax ne pare na nga ñaari dong wala benn dong yaa xam lu sa kéemtulaay kàttan incha allahu taala danañ ci am yeneen jataay yoo xam ne moo gën a yaatu suñu jógee fii itam mbooleem loo xam ne mbokk indi na ko fi euh, waaye def baax yi indi nañ ko incha allahu daa daañu woote beneen bis boo xam ne daañu daje moo xam fii la wala ca fañ ko daan daje woo leen yéen soxna yi ñëpp ngeen dellu si kenn ku nekk la nga xam ne mooy ci sa cër jox la ko nga yóbbu ko ca daara ya nga xam ne moom nga dendal incha allahu taala loolu lañ doon wax ci gàttal leen wax na it eh, machine yaa ngi noonu dañ doon présenté rek wan leen ko waaye su barab yi noppee ba nga xam ne courant bi ak lépp ñëw na bañ nga installé rek ci des incha allah machine yëpp dana ñëw ñu tàmbali di ci liggéey lu mel ne ay machine ay machine ay ay ay cak-cak wala ay wata yoo xamante ne bii day transporter yére yi di ko indi loolu itam kuréel gi soxla na ko te itam lu mu ci man dana ko defal boppam lu ko ci keneen joxe itam mu defale ko ci loolu kon moo doon euh, euh, message bi nga xam ne doon nañ ko jàllale di baalu àq ñëpp di gërëm ñëpp di wax rek déwénati asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Abdou Abdoul Ahad liñ ci doon taamoo ngi noonu xam naa ñu ngi jégg lu baax mbooloo mi toogaay bi yàgg na te xam naa ne xaw nañoo am tuuti itam yoo xam ne munta ñàkk ndax sëriñ Abdou Samad ku toll ne sëriñ Abdou Samad ni mu toll ci yoon wi ak ni mu toll ci daara mu yabal si doomam sëriñ Murtada ma ngi nii toog su ko defee rek kàddu gi ñu jox ko ko bu noppee nag sëriñ Moustapha Diop nga limal ñu li nga xam ne mooy délégation yi waaw bu ko defee ngeen may ñu ak dégloo bismillah bu ko defee ngeen may ñu ak dégloo sëriñ Abdou Samad Mbakke ibnu sëriñ Chouaïbou dafay yebal doomam sëriñ Murtada Mbakke am ay kàddu yu mu bëggoon a jot li ci mbooloo mi bu ko defee ngeen may ñu ak dégloo ngir jëmmi sëñ Tuuba ndax kuy wax ci alxuraan ak sëñ Abdou Samad fi ko daaree alxuraan toll ba ak njabootam tàbbi ci biir yaakaar naa liggéey boobu bu ñu nangu la kon li ci des mooy ñu may ñu ak dégloo ngir jëmmi sëñ Tuuba mu am ay kàddu yu mu jot li rek te fas yéene koo jariñoo bisimilah. aleykum wa rahmatullah sëriñ Murtada mu sëriñ Abdou Samad mi ngi leen di nuyu moom nag dafa wax ne